asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey bu ngeen gisee suñ présence fii duñ laaj ca fii mooy Fatick li waral suñu teewaay mooy dañ fi ñëw am benn problème bu fi amoon benn borom Jakarta bu ñu wax ni benn borom policier yi ñoo ko jàpp dóor ko ba yàlla moom ba kenam ci seen ay loxoom ñu ñëwoon nag pour am ci quelque leeral xanaa dañuy bàyyi mbokkam yi nga xamante si ñoom la doon liggéeyandool ñoom ñu ngi nii dañ ci mën a wax lu gën a leer ngeen gën a xam problème bi nan la demee exactement. waaw bi mooy nu mu demee mooy suñ mbokku taximan la quoi waaw affaire bi nag ñun kaa fekkee wuñ affaire bi nu mu demee juste fekk nekkuñ sur le terrain quoi mais dañoo ñëw daal fekk gars yi gars yi booy bi daal dañoo leen fekk booy ñuy bàkkantu quoi xam nga ñu nekk waaw di bàkkantu quoi ci ci benn arène fii nii ñu fekk booy ñu toog. ñu fekkee booy ñu toog nag waaw ñu leen booy loo leen am nga yenn booy jóg daw mais booy bi moo toog booy bi mu toogee gars yi fekk ko fa mu ne booy yéen policiers yi nii ngeen di def rek xam nga di ñu saltel quoi benn instant ñun yoruñ da dañuy bàkkantu fi ngeen toog waaw di ñu saltel benn instant quoi xam nga loolu la leen tontu quoi léegi gaa yi jël booy bi waaw yége di booy bi yóbbu ko yóbbu ko ko dul police dañ ko dañ ko waroon yóbbu police xam nga jéem ko enquête affaire yooyu noonu quoi mais defuñu ko dañuy yóbbu booy bi xam nga ba géej dóor booy bi waaw booy bi faatoo seen loxo fiñ leen fekk ñu toog quoi bi benn arène la nii ko mais arène bi parewul foofu lañ ko fekk mu toog moog yeneen booy yeneen booy nag dañoo dañoo jot a daw quoi benn instant moom nag moom moo toog xam nga dañ leen ne affaire affaire dañoo yor affaire drogue affaire yooyu noonu quoi waa lañ leen soupçonné te fekkuñ ci ñoom dara nit ki fekk nga ko mu toog mais fekk man boo ma fekkoon tey ma toog boo ma fekkoon ma toog ah du ma gis police rek daw du ma daw non non police doo ko gis rek daw yoruma lu ñuy tere du ma mos a daw. boo ma ñëw jëlee yóbbu ma boo ma ñëlee yóbbu ma da boo ma jëlee yóbbu ma ah dama lay foo ma woo dinaa la fa wuyu mais dañoo waruñ yóbbu booy bi enquête ko affaire yooyu mais waruñ téye booy bi dóor ko ba mun a faatu ci erreur waaw ñun nag moom am nañ lu ñu métti trop am nañ lu ñu métti trop benn instant am nañ lu ñu métti trop waaw ñun suñ moto lañ yor di daañ suñ doole yaa ngi xool suñ moto lañ yor di daañ suñ doole benn instant quoi sàccuñu fenuñu waaw di dimbali suñu waajur suñ moto yi lañ yaakaar liggéey amul Fatick fii amul liggéey fii amul liggéey jëwriñ billaa walaay fii amul liggéey ñun dañoo sonn ñun dañoo sonn benn instant sonn nañ trop billaa walaay liggéey amul ci dëkk bi ñun téye suñ moto di daan suñ doole ñu ñuy ay ramas ay ramas 9 heures ci suba 10 heures ramas ah 14 non non moom jotul am jabar. xale bu ndaw la. waaw da doon dimbale ay waajuram. chaque jour ñoo doon liggéeyandoo. waaw ku ko xam-xameewu ko problème jàmm ak salaam la ko xamee. sema bi nu mu demee ñun ñii ñëpp xam nañ ko ndax aussi tamit ñun dëgg dëgg nañ ko xamante amaana jege na koñ bi jege na koñ bi mu amee booy si arène ba fa la ñuy toog buñ toogee si arène bi fa la ñuy fa la fa la ñuy rëppatal kuy Baay Faal xam nga la mooy rëppatal mooy lan yor say pièces toog di sikarantu xam nga di baaxantu nu fekk leen fa yor seen particulier dawal ba foo fekk leen fa amaana ñu ñëw ne leen booy noo leen fi def yenn booy daw ñu tànc fa ñaari booy fa tànc fa moom moomu Lamino waa ak benn booy ak benn booy waaw ak benn booy petit ñu tànc leen fa bu leen fa tàncee ne leen loo leen def fii booy ne defuñ dara dañuy toog di rëppatal di sant sëñ Touba xam nga lu ma lay wax ñu ne leen léegi yëg leen nii booy yéeg ñu yóbbu leen buñ leen yóbboo buñ leen yóbboo géej nag di leen massacré ndax booy bi yàlla def na daa feebaroon yaayam ñàkk na si xaalis weex tàll léegi booy bi sonn na ñoom dóor nañ booy xam nañ ne booy bi sonn na ñu daw wàccu leen fa affaire bi noonu la demee quoi. waaw ah, fi ko doon dóoree foofu lañ leen leen ko dóoree fa lañ leen bàyyee quoi. bu fa ba géej lañ leen la si woon ci géej ba waaw am na géej waaw benn genre bras de mer yooyu noonu yóbbu leen fa dóor leen bu ñu leen dóoree ba booy sonn xam lu ma la ñu bàyyi leen fa dem ci lañ ooyee benn taximaan suñu garant bu yóbbu dëkk seen secteur muy amayata mu ñëw taal mu ñëw taal otoom yóbbu booy hôpital ba ñoom ñuy waxtaan sax ci biir xam lu ma lay wax ci lañ ko yóbboo malheureusement ñu ne après booy bi booy bi mujj naa wàññeeku semence bi noonu la demee quoi mais booy bi deewul foofu boobu hôpital la boobu. Eh, eh, noonu la demee hôpital hôpital la wàññeeku mais ñoom dañ ko fa wàcc dañ ko dóor ba dañ dañ leen massacré pare aussi tamit ñu wàcc leen foofu noonu bu ñu leen wàccee foofu noonu beneen booy bi o amayata amayata ñëw jël si leen yóbbu leen yóbbu yóbbu leen hôpital. loolu ñun ñu si bëri ñu si bëri xamuñu woon yëguñu woon lu xew quoi dañoo jàppoon ne booy bi dafa sonnoon rek xamuñu ma ne si génn ba dernier moment nag ñu ne ñu booy bi booy bi xam nga booy bi naa wàññeeku waaw mu metti ñu torop barki alxuraan yi ndax tout tànk boobu ko xam ne amul kenn si taam ku koy xamee man de man su ma lonko la xamee wa ma ko tox ak ñeneen ak ñeneen li ñuy li ñuy teroon ñun Fatick amuñ fi jaamu quoi nañ waxante dëgg te yàlla rek tax ñun amuñ fi jaamu lu neex waaye def nu xoolal pamte pamte ñu gaan guddeeg bëccëg gaan barki Seydina Ousmane Mbacke te ku si nekk yaa yor sa machine nu mu gàtt gàtt benn ñaar téeméer wala benn mille cinq cent yaa ngay xëy di ko bàyyi sa diwaan ku si nekk di di si jëriñoo say rakk yaa leen di gérer barki alxuraani karim war na Seydina Ousmane affaire dañoo metti ba si kanamu yàlla mais nag dañuy ñaan ngóor gi li yëpp buñ bàyyi mu sedd waaw jël nañ lépp teg teg ko seen loxo quoi ngir jëm yàlla ko war a sóoli buñ fi ñëw buñ fi ñëw waaw buñ fi ñëw buñ fi ñëw di ñu naan ne ay booy bi nii la demee ne nañ ñu tegal sement lu fi nekk gars yi def loolu ñu jàpp leen comme seen morom yi jàpp leen tëj leen ci kaso gi te amaanaa ñoom ñoo yey njit ñoom ñoo waroon fekk fu ñuy reyee nit xamuñu jàpp googu ñu tëj amaanaa mais ñoom ñooy jàpp di toroxal doomi aadama yi ba pare xama rek mooy loolu noonu quoi waaw ni ñu si jéem a jàpp nag te yàlla tax. non non non mu ngi tàmbalee mu ngi tàmbalee mu ngi tàmbalee brigade ñun bu ñu paree tak brigade lañ dem après xama rek booy di affronté ñoom bu affronté ak ñoom après ñu mujj au renfort. bu ñëwee renfort booy dooree ñëw na fu si nekk ñu taal mais booy jóguñ pour leen dañoo bëgg a taal rek pour pour wanal nit ñi ne waaw voilà voilà voilà am na lu ñu métti quoi sement bi noonu la demee bilaay walaay taalaay wër na yàlla baay policier baay dañoo sonal baay policier baay may ñu jaamu baay dañu jéem a baay ñu liggéey baay te yàlla tax barki Serigne Bamba baay ñun saajuñ fenuñ defuñ dara baay mais policier baay may ñu jaamu baay ak dëkku mairie bi tamit baay Fatick baay ak lu toll ni Fatick baay ñu téye suñu moto yi baay di si kooci kooci baay kon nañu baay baay ñu liggéey baay te yàlla tax barki Serigne Ba Mbacké nañu trop baay bilaay walaay taalaay gars yi ñu ngi leen di nuyu yéen baay policiers yi ñu leen wax Macky Sall la wax président Fatick amul liggéey Fatick amul usine amul dara dawal moto moo fi nekk boo fi dawalul moto da ngay toog waaw Fatick boo amul bac amoo BFEM dawal moto ngay def boo dawalul moto yaa ma gën a xam parce que Serigne Touba su amoon ay usine kon nit ñu duñ ne si moto yi mais Fatick amul isin amul dara toog soo daawul moto da ngay toog di xoolee waaw ñi fi am ay bagag befem dañuy daw semence moo tax ñuy dem si armée ki kenn xamul waaw mais Fatick bu ñu fi deful ay usine nit ñi duñ fi nekk di dawal ay moto gi kenn xamul Fatick amul dara boo fi dawul moto da ngay toog di xoole waaw nañ may borom moto yi jaamu ñu bale ñu liggéey borom moto yi amuñ benn problème liggéey wàcc lañ xam ak dimbale seen bopp dimbale seen waajur waaw ñun nag bu ñu teree moto yi xaw ma lan la ñuy defi Fatick métti na trop mais borom moto yi ay góor lañ doo fi dégg nit rey na nit doo fi dégg nit agressé na fi nit doo fi dégg nit sàcc na fi nit borom moto yi duñ agressé duñ sàcc eh, waaw dóor waar lañ xam dañoo bëgg Macky Sall nag geesuñu def Fatick loo xam ne jëri nañ si jàpp parce que jàpp nit dóor ko ba mu dee looloo dafay métti adduna bi na comme ko foog ne da nga nekk sax fi ba abadan lu la neex defal mais yàlla am na. Euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. te spectateur man la Mamadou Senghor je suis euh, étudiant à l'IFAS euh, de la FASEG nekk aussi euh, doomu Fatick jóge Dakar aussi ci li nga xam ne moo xew dëmm muy suñu frère bi nga xam ne mooy Mamadou Lamine Koita connu sur le nom de Lamino ci li nga xam ne policiers yi ñoo ko fekk fu ñu fekk fu ñu ko fekk jàpp ko yóbbu ko. amuñ fu ñu koy yóbbu au lieu ñu yóbbu ko commissariat ñu yóbbu ko fi nga xam ne moom mooy géej dóor ko fa ay dóor yu métti ba mu nekk koo xam ne mujj na ñàkk bakkanam ci loo ci loo xam ne vraiment teguñ ko ci yoon mu nekk injustice totale mu nekk loo xam ne nag rafetlu wuñ ko la tout la région de Fatick ñu ngi ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy les autorités judiciaires ñu wàcc sur le terrain xool autopsie bi ñu am ci lu leer nañ parce que ñooñu dañ leen war a teg yoon policiers yi nga xam ne ñoom lañu war a wax ne ñooñu war a saytu bu ñu ñëwee tey bay jàpp population bi di leen di dóor ba leen di rey yaakaar naa ñu maîtriser wuñ seen métier donc loolu aussi wax dëgg fa yàlla nekk na loo xam ne métti na ci xool torop torop torop torop torop torop ci koo xam ne dafa tollu ci ci ci euh, digg jamonoom war a tekki jàppale ay waajuram ñu ñëw jàq yàqal ko àddunaam ci kenn xamul actuellement nag ñu ñi nga xam ne ñu ñooy jeunesse su Fatick jóg nañ te duñu bàyyi tant loolu justice tegu ci li nga xam ne Euh, tegu ko ci yoon xoolul ñi nga xam ne ñoom ñooy les fautifs ñu yóbbu leen en justice donc ñu ngi ñaax ñi nga xam ne mooy gouvernement bi ak les autorités judiciaires ñu teg ci seen yoon incha allah nu les étudiants nous toute la jeunesse faticoise pare nañ pour xeex combat bi ba jusqu'au bout donc ngir yàlla ak yoonanti bi bu ñu mënatul surveiller ou bien protégé li nga xam ne mooy population bi na nañu wàcc ñu bàyyi population bi la ville de Mamindis kenn xameewu ko coow kenn xameewu ko sàcc kenn xameewu ko banditisme on vit dans la communion la solidarité et la tolérance fii yaakaar naa ñun ñu fi nekk yëpp xamante nañ donc benn famille la on est unis Mamy Ndiss mu ngi ñuy protéger soxlawuñ policiers yuy ñëw di ñuy tànqal au lieu ñu sécuriser il ñoom dañuy apporter li nga xam ne mooy insécurité totale si suñu dëkk bii nii ngir yàlla ak yonent bi nañu ko bàyyee merci